أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw ba leen nuyoo gën gi nuyoo di asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi dellu di jaajëfal borom Tuubaa mi nga xam ni mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg di jaajëfal borom Tuubaa bi nga xam ni moo nu dimbalee indil nu weer bii di weeru safar tànn nu ci dix-huitième jour ni nañ ko ci santale yàlla ci loolu nag Talibé yi taxaw ci ngir màggal weer wi ba tax na gis ngeen émission safar yooyu ñu doon amal dikk ngeen ànd kaak cuun bëgg Bàmba mu dalaloon ci ganam yooyu ndeysaan ñu waxtaanee ci xam-xam tey nag di samedi 4 3 octobre talibé tv ñew fi ci touba pour dundu ak yeen magal gi pour yeen internautes yi nga xamni yeen sori yeen yi nga xamni ñewagu ngeen bëgg xam lan mo xew biir touba talibé tv ka nara and ak yeen di len wan lepp lepp duñ ko ci bayyi di ñaanal cheikh mohammedou muntaha ibn cheikh mohammedou bashir yalla naka sam borom doli degeural yalla naka sam borom doli katanal yalla na sam borom guddal fanam ba bepp nal gu mu nal suñu borom katanal ko bam sotal ko ba nal yenen di doli nak suñu yaakaar ak suñu gëm ak suñu doylu ci suñu sayyid Cheikh abdullah wa Khadim Rasulullah di len wax ay tie Cheikh ñu ànd bu garfé ñu jël ay mbokki ay ay ay mbokki talib ay mbokki julit bu garfé waxtaan ak ñom ci bés bi. wa ma sha allah ñu be léegi sur Talibé TV ñu day fek suñu mbokki taalibe jëru ñu nal la. waaw auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi siyaare xalifatul am di tarixatil serigne mohamedou muntaxa mbacke diko ñaanum ñaanal fi te wér waaye noonu la ñuy serigne cheikh dembu mi fi nekkal mam cheikh ibra ak njabootu mam cheikh rafal gep ak jull yëpp man la baye fall masalikul <laughs> ma sha allah on fa dëgg yalla yaakaar na ni ku tv depuis ci inauguration ba ñu nak mom serigne mortal serigne mortal ñu gis ñu dayé fi tay ci touba lu waral loon xëy na bi sax duñ laajte lu ko waral waye lu waral gi wa xam nga euh, di sante yalla rek di julli ci yonent bi waye di sante khadim rasul yaakaari jamm ndax mom mi nga xam ne moo libéré l'islam lii li ko waral mooy màggal gi rek màggal gi rek dafa am lu ko waral mooy bisub natt bi waaye moom da ci sant boromam ndax boo xoolee màggal gi euh, ma ngi ko njëkk a defee ca Ndiarème 1918 waaye dafa woo Sëriñ Mouhal bu Bousso jox ko aw bëyam na ko yóbbul ma ko ca séeréer ga ñëwutal ma aw gàtt gàtt boobu bi mu ñëwee mu woolu sëñ Mor Jow Paxa wow sëriñ Balla Faali Jang na leen defar leen ko dañ ko defaree mu def ko yetti saam ne benn bi nañ ko yóbbu kër soxna Aminta Bousso nday Serigne Abdoul Khadir benn bi mun nañ ko yóbbu kër soxna Bali Bousso benn bi mun nañ ko séddale ci fere yi te sante la ko sunu borom jàng ci alxuraan jàng ci xaside te berde ci màggal nag gii ñu ne moom dafa am lu ci sëñ Tuubaa di wone ndax Serigne Saliou Mbacké nee na yaari kër bu ñu dendee kër gi fonk màggal gi ak ku ko fonkut bu màgg gi ñëwee kër gi ko fonk dana gis lim ko rawee fop ñaari nit bu ñu dendee ki fonk màggal gi ku ko fonkut bu màggal gi dellu siwaatee dana gis ki fonk màggal gi li mu ko rawee màggal gi nag du ma sàmba du ndigalu ma demb boo xoolee Cheikh Mawdul Mouhamadou Moustapha mi njëkk a wutu Serigne Touba ba ci Cheikh Mawdul Fadal ba ci Cheikh Mouhamadul ba ci Cheikh Abdoul Ahad ba ci Serigne Abdoul Khadir ba ci Serigne Saliou ba ci Serigne Mouhamadul amin Baara ba ci Serigne Sidil Mokhtar ba mun Serigne Mountakha mii borom mbég mi yàlla na fi yàgg loolu te wér màggal gi nag ndigalu sëñ Touba la moo tax ñu defee ko nii te ren xam naa ne ku ñëw Touba da nga gis mu mosoo ko gis ndax Touba moom sëñ Touba moo ne suñu borom defal na ma loo xam ne dootu ko defal kenn ilaa yaqaadallaahu maalam yekku ni wala yekku ni xabadan li mun ki ni te njëriñ la lu an tak lor màggal gi bu ñëwee boo gisee ñëpp dañ ci gis seen bopp muy jaaykatu fur yi dawalkatu oto yi jaaykatu nag yi jaaykatu xar yi jaaykatu essence yi ba ci Europe tubaab bi dina fa yor seen essence dagg biyee ñëpp ci gis seen bopp kon nag la mu ne woon njëriñ laa lu ànd ak lor mooy dëgg allahu yansuruni wal xalqu tatbahuni fil barri wal bahri saan fil baari wal bahri saan naf in bila darin kon njëriñ la lu ànd ak benn lor kon lii moom boo xoolee muridullahi mooy ko jëm ci yàlla rek ñëpp a ngi fi màggal Tuubaa bu jotee moom tarixa yëpp ay ñëw ndax seet si eh, njukkal si Sëriñ Tuubaa santale ko boromam ndax bëgg démb rek ñu ngi ziare Serigne mbay si Mansour ak kilifa diine yëpp bëgg démb rek Serigne mahamoudou Mountakha dafa def lu am solo jumaa ji bi koy tabax mu yëkëti participation am joxe ko muy 100 millions loolu lu rëy la te julit yëpp la ko defal kon bay Fall loolu la Serigne Mountakha def dañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér boo laajaatee leneen ñu wax la. waaw ma ma allah lan ngay soññ mbokk daal bi nga xam ne ñëwaguñu te war a ci dëkk bi maanaam ci tegginu dëkk bi. ak màggal ak Covid. waaw maanaam li ma ci soñu mbokk taalibe yi rek ñu jëfe ndigalu sëriñ bi ndax murit moom ndigal euh, la maam Cheikh bi dafa al waxoon rek newoon na sëñ Tuubaa yow nekkal ci càng gi rek ma nekk ci njaam gi mag sama waa kër waaye murit moom bu tënku ci ndigal rek moom daanaka ci yoonu boobu la euh, aw nañ euh, jàppoo ñu ñëpp tënku ci ndigal li sëriñ bi wax muy masir barrières yi muy masques yi gis nga maa ngi sa masque yaa ngi sa masque kuy ñew dal na nga yor sa masque bo ñewé tam bo amul masque itam masque yaa ngi fi dañ la jox masque ndax ndigal sëriñ Mouhamadou muntaha moy sëriñ Touba te ñepp gis nañ ko mu tak masque kon nak ñun murit ndigal murit nak da yor jikam neew buñ koy sang du ne fenn lañ may jale fan fenn lañ may awale nañ teŋku ci ndigalu sëriñ bi wax ndax ndigal njëriñ sëriñ bi mom ndigal mom jëfé rek mam Serap ci la ne baraw ñëpp Cheikh Sa jenn ci la ne baraw Cheikh Massamba jëm Sam ci la ne baraw ñëpp mam cheikh ibrahim ci la ne baraw mam Cheikh Anta ci la neub raw ñep kon nak nañ teunku ci ndigal bo xolé cheikh yi àndoon seigne toy yep manam lu leen seigne bi digal ñu def way seigne musul leen gisul muy tere non la ab murit di mel kon ñi ngi jaarewaat mbokk talibé yep di ñaal ñi bu ñëwagut ñu aksi ci jam ñi ñew itam ñu dal ci jam ndax magal yi ren da nga gis lo xam muso ko gis ci barke khadim Rasuul ndax magal gi ren moy magal gi moy magal gi ren dal moy magal gi kon ñi ngi jaare ñep di ñaal ñep jam ñi ne ci yoonu ñew yalla ñu aksi ci jàmm ñu ñëwagut itam Euh, yàlla nañ ñëw ci jàmm ñu ñëw ñu yàlla nañ dal ci gam jàmm ñu màggal koy ay ati at te Serigne Mouhamadul Mountakha yàgg fi lool te wér ndax yàgg fi nag njëriñal jullit yëpp la de waaw waaw ndax moom day murid sadex daa toppee ku fi mës a nekk sëñ topp na la waa waajuram si Ahmadul Basiir rek moom mooy borom mbég mi waaye sëñ Mountakha mooy borom mbég mi ak taar bi moom ku fi mës nekk rek di sëñ Tuubaa topp na la ba am sa ngërëm kon nag ku nanguta topp kenn du la topp ku kenn du la topp kon sëñ Mouhamadul muntaha yalla na fi yag lool te wer ak njabot sëñ touba yep ak cheikh yep ci doole sëñ Bamba ak cheikh bi yow tam ñu ngi lay saare di la ñaanal ndax sen euh, télé bi euh, sen euh, Talibe TV mi ngi liggéey liggéey bu am solo ñu ngi yéen ci masaliku dina ñu ngi yéen ci événement sëñ touba yep kon nak yalla na gëna jëm ci kanam ci barkeb sëriñ touba ak mam cheikh Ibra ak yeen personnel bi yep ndax yow ño bokk kër Seex baye Baay nga ak gaay yi nga andal yep yalla leen yàlla gën dolli ci doole sëñ Bamba ak Cheikh Fall ñu màggal koy ati at ci barkeb yonent bi barkeb Seydina Mohamed barkeb Cheikh Fall jaajëf Baye moom mooy Baye Mor Talla Fall Baye Fallu Masalik loolu la nag gis nga ren moom màggal gi mooy màgg le màggal du défi ren yaakaar naa mooy màggalu Murid Saadix mooy màggalu waaw sëñ Muntaxa ren mooy màggalu sëñ baa kon nan ko jaayante ñi nga xam ne ñoo ne ci yoon yi ñuy ñaan chauffeur yi na ngeen daw nànk yegg si nànk incha allah bu ko defee ñu yegg si jàmm magga ci jaam ak delu wat ci jaam ak salam di ñaanal serigne bi ben accident yalla mën nako ko sañ nako ko nako defal ci barke serigne bi ben accident baña am kon ñu jëlat keneen cheikh waaw sha allah ah, ba léegi sur Talibé TV ñu dajé fek suñu mbok Talibé seigne Assane Diop mi nga xamni seigne Serigne Assane Diop muqaddamatul khidma ñi nga xamni ne ñoo yor entretien jumaa ji nga xamni day suñu sak ñun ñom ñoo entretien bi ak jëwriñ bi nga xamni moom mooy président kuréel ba ne Mali Mame Balla Gueye Muxaddamaatul Xidma sëñ Assane Diop mi nga xam ni moom ma nga ne ba mooy wàllum diaspora bi sëñ Assane nuyu nan la. waaw jërëjëf ñoo ngi leen di siyaare euh, yéen waa télévision Talibé TV euh, rafetlu ci seen dajeeg yéen rawatina ci diggante bii nag. muy résident Seexul Xadim ak jumaa ji kon dal na xel lool. waaye itam euh, di wax ne nag yéen yàlla leen sëriñ bi fay tey rafet nañ si njot ndax seen seen seen seen seen teewaay mm-hmm. tax na ne tax na ba mën naa ne ñëpp ngi ànd ak euh, màggal gi ndax seen taxawaay ndax ñëpp ñi ngi gis lay xew euh, di di ko dund bu wér a kon nag yàlla leen yàlla fay ci doole Cheikhul Khadim di leen siyaar nag tey jiital siyaar bi Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha Euh, yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér di siyaare mboolem euh, umul islam yëpp di siyaare mboolem taalibe yi di ñaanal ñëpp tam ñu ñëw ci jàmm mm. ba ba ba delluwaat ci jàmm ci barke Cheikhul Khadim ak màggal gi. léegi jëli maanaam wàllum entretien beeg yu léegi ban lan moo sos daayira gi lan moo ko sos. waa daayira Muxaddamatul Xidma nag moom buñ ne daayira bi mm. mooy daayira bi nga xam ne moo yor waaw moo yor jumaa ji ci ci taxawu yor jumaa ji ci entretien ah, loolu nag euh, day loo xam ne euh, lu ko jiitu baay sëriñ bu sa ñoom ñoo fi nekkoon daan ko baleet ci setal ko ak ci lépp yàlla dogal nag ci baaxam euh, daayira bi moom mi ngi judd mars waaw 94 waaw 94 Cheikh Saliou moo taxawal ci ci ci nekkuk sëñ Saliou ci la daayira bi sosoo Euh, ba loolu moo leen jox tur wi euh, ba Cheikh Saliou sax dafa waxoon ne yéen dafa mel ne liggéey bi Serigne Touba da leen ko dencaloon. ba taxoon mu wax ne wal tudd xalil musliha fi yaddi wa fi daari wa sabitanhu bil hadi wa fii bayit boobu sëriñ euh, Saliou moo ko tudde woon daayira bi ba daayira bi tamit kenn ku ne gis na seen taxawaay rawatina ci entretien bi nga xam ne ñoo ngi koy def ci jumaa Eh, ku xol tam bis bi tay nim tollu muy magal gi euh akit ni jamono euh ñoo ngi ñaan yalla mu jéxal mbass mi waye tamit de ngeen ci déclaration bi eh, Cheikh Modou muntaha dolli ko ci ñom yaakar ba ci kàddu Cheikh Mamadou Bassir wax na ne daayira bi moy daayira bi nga xamné moy bi gëna kawé kawe ab liggéey gëna a ab liggéey ci magal gi lool nak liko waral moy euh ku xol ne magal gi damay wax né mboolem ñu wuy si sëñ Touba rek képp ku egg si Touba boo egsee sa kër boo wàcc sab saak la sam xel di njëkk a daj ak sa xol mooy dem siyaare ji seexul xadim ñëw ci barab bii siyaare si ko loolu nag boo ko xoolee ah, li la mën a seedeel ne fii mooy dalal gan ñëpp bërëb bu tedd bii mooy dalal gan ñëpp buñ ne 4 millions de personnes ñoo ngi ñëw Touba te ku si fi ngay dal la sa xel di njëkk a daj mooy siyaare ji sëñ Touba ba moo taxit waajal nañ ko waajal gu wér ndax lu toll ci juróomi téeméeri nit yoo xam ne amuñ jënn yitte ju dul gàttandu gani sëñ Tuubaa yi ba ku ñëw mën a egg ba ba siyaar sëñ bi defe ko niñ ko bëggee ba mesures barrières tam leeral nañ ko mm. koy dugg nga raxasu mm. nga laal sel mm. nga takk masque bi ah nga nga nga s'orienter distance bi dox ndànk ba egg siyaar Seexul Xadim loolu tam ñoo ngi koy fàttali ñëpp di ñaan nag sëriñ bi yàgg fi lool ah, ñun nag suñu wetu ci wàllu diaspora ni nga ko leeralee. Mm. Euh, ñoo ngi siyaare waa diaspora. di siyaare sëñ Mame Balla Gueye. sëñ Mame Balla bisimilah. Uh-huh. Euh, nekk ba Mali. doon jëwriñu daayira Touba Mali. Mali buñ ko tuddee danañ siyaare sëñ Mame Balla Mbacké. danañ siyaare sëñ Mame Gor Dia. ndax xam naa tey jii léegi lañ fi egg si. waa daayira Touba Mali. Euh, jébbale nañ fi 500000. yoo xam dafa jëm ci entretien bi. ku ñuy wax sëñ Mame Gor sëñ sëñ. sëñ Abdou Khadir Mbow moo ko fi indi ñoo ngi siyaare kon sëñ Maam Gor Dia ak waa daayira Mali yëpp di xam ne seen jëf agsi na ci liggéey bi mm. euh, noonu tam lañ ko séqee ak réew ci diaspora bi démb fédération daayira Seexul Xadim Touba Espagne mm. ci njiital sëñ Bakke njaay ak sëñ Mor du mm. ak sëñ Alaaji Abdou Ndiaye ñoom itam ñëpp dajee nañ fii ci biir jumaay Seexul Xadim ji jébbale seen participation mu jëm ci jumaa ji Espagne nag ku ne mën na koo jumaa ji mm. moom ci matériel ci ndogu yi ci koor gi ci màggal gi ci ba ci oto yi lépp ba ci matériel bi lépp rek ñoom ñoo ko ànd ak daayira bi noonu lañ ko amee itam ba Amérique fondation mm. euh, fondation Muxaddamaatul Xidma noonu itam lañ ko amee matériel yi jógee Paris ba Italie am na machine yi fa jógee ci Veneto kon daal yéen seen dajeeg ci moom daal am nañ ci mbégte waaw ñoo ngi ñaan nag ñu dajeewaat ay déwéni déwén sama appel nag mooy mm. ñu gën a xam daayira bi daayira Muxaddamatul Xidma daayira bi nga xam ne moo yor entretien mm. moo yor seetal gi mm. moo yor mboolem lu aji ci biir mm. euh, di taxaw màggal gi ci ci ci ci ci ci entretien ak ci ak ci ak ci ak ci xayal ko lépp kon ñoo ngi fàttali képp koo xam ne daal yaa ngi bitim réew ñu gën a jàppaat ci daayira bi waaw ja gën a jàppaat ci daayira bi ba li yéene sëriñ bi ba tax mu dénk leen ko loolu euh, yaakaaram di ci gën a dolliku ba faawu ñoo ngi ñaan yàlla mu boo leen defal nag barki waq daa waay jëli si na daamoo fi xidmati waab la maaraamun inna li si na saaraxon li xidmati fa law mu diyaar wasal jannati seen mbokkum taalibe Assane Diop mu xadamaatul xidma sëñ Mame Balla jërëjëf sëñ Mame Balla sëñ Assane ñu bàyyi la nga nuyoonteeg mbokki internet waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli di mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare tey ñaan yàlla suñu borom defal ñu màggalu jàmm ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal Serigne Cheikh Jëmm Fall ak mboolem njabootu Cheikhul Khadim gi di ñaanal tamit mboolem taalibe bu màggal si yàlla suñu borom defal la màggal gu nangu ah, suñ jëwriñ dafa wax lu am solo léegi ndax foofu rek la ñuy ah, yëkkati suñu kàddu jëmale muy maanaam communication ngir lu jëm ci daayira Muxaddamatul Xidma ndax dafa jot daayira bi Euh, maanaam wër murid yëpp xam ko ndax lii barab bu teel bu sell bi mooy xolu murid yi te mu daayira Muxaddamatul ma Cheikh Salim Mbacke moo ko sesoon tudde ko mu daayira Muxaddamatul ma joxoon ne lépp loo xamante ni moo jëm ci liggéey bi jumaa ji ndax jumaa ji kat ku ne xam ne ni sëriñ bi moo ko naalaloon boppam mm. képp koo xamante ni feeñ nga ci dootul nëbbu ba faw sëriñ Saaliw ca baax nga ca bëggee yéene ndaw ñi ndaw ñi xéewal mun len nak liggey bi dama koy tek ci loxay ndaw yi ku man sa ñaat témèr def ci daayira Muxaddamatul khidma liggey bu simple la ni liggey manam 2140 moy carte membre wérul be nga renouveler ko 1000 francs ak fep fo xamanteni am nek nañ fa bu koor joté junni junni la ni sas mbolé membre daayira Muxaddamatul khidma bu loy man 5000 kese bu magal joté ni tay ji tamit mom la ni sas mbolé membre daayira Muxaddamatul khidma mom la ni dajal yi ko indi ci ku nek gis na wéru koor ni mi mel ay ay millions yu bëree bëri la ñuy financé di ko def ay ndogu te loolu lépp daayira Muxaddamatul Xidma moo koy def lépp loo gis ci jumaa ji tamit muy taaru ba ci baas parasol yi ngay gis daayira Muxaddamatul Xidma moo ko ci def te wax dëgg yàlla néew na néew na doole lool ci réew mi rawatina Ndakaaru nga xamante ni la daayira waroon ëpp daayira dooleem ko néew bitim réew la Amérique Espagne euh, Afrique sax maanaam ay Mali Côte d'Ivoire ci gis ñu ci xaw a lépp loo xamante ni média la loo xamante ni mën naa yaatal ñu fexe ba turu daayira Muxaddamatul Xidma ñu dégg ko ba murid yëpp jëm jëme ci seen yitte manam daayir bi mën a yaatu loolu moom bu soobee yàlla mooy suñu yitte comme màggal gi fi ne nii moo nu jatt moo tax mën a gun cee àddu wante bu su magal gi jàllee bëgg nañ bépp média bo xamante ni mën ngaa yaatal daayira Muxaddamatul Xidma soo contacté jëwriñ yi dinañ def ak yow émission wala ñu def ak yow lo bëgg rek loo xamante daal lu jëm ci ah, ah, daayira bi la ngir mu yaatu noonu mu ko waxee tamit ñi ngi sant bu baax waa daayira ah, Muxaddamatul Xidma ca Mali nga xamante ni man maay jëwriñ ji ànd kook sama jëwriñ yi nga xamante ni boobu ba léegi ndeysaan tàyyiwunu saa su nekk ñi ngi def effort buñ mën a am luñ mën a ñi ngi koy dajale di ko indi ci jumaa ji te saa su tamit yokkute la ndax liggéey boo xam ne mi ngi tàmbali woon lu matul ñaar fukki junni te ñuy jébbale cinq cent mille ci lu matul deux ans kon liggéey boobu mi ngi dox ban ta ban ko tàmbalee Malek léegi matagul deux ans te yaakaar naa ni ban jëkkee jébbale ñaar fukki junni sax matul te ren jii ñu ngi jébbale 500000. kon loolu mooy wax ni liggéey sëñ Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam rek. lépp coronavirus bi waaw coronavirus bi te ñëpp yaakaaroon na ne sax liggéey yëpp day sooxe wante coronavirus bi ñu yaakaaroon liggéey day sooxe ci la liggéey yi gën a gën a gën a gën a doxe kon loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di ñaan bu baax a baax Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu te di ko ñaanal Serigne Cheikh Jëmo Fall ak mboole eh, njabootu Cheikhul Khadim gi jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ mbay bu nangu xol yi nangoo ko gën te xol yee nangul sëñ Tuubaa mhm. te wax fa dëgg yàlla moo tax murid yi korona du leen tënk mhm. ñun sëñ Tuubaa kese nu mën a tënk waaye du ay corona du nangam ak nangam tubaab yi àndoon ak sëñ Tuubaa ñoo rawoon corona te teewunu sëriñ bi def li mu bëggoon a def mhm. terewun ko benn yoon muccal nu terewun ko benn yoon sàmmoog diine wun ko benn yoon sàmmoog sunna kon dañuy ñaan daayira bi yàlla na sam borom jëm ca kanam te incha allah danañ ànd liggéey bi yii yëpp jàlle bu neexee yàlla jumaa sëñ Tuubaa moo xooloon boppam ni ku ci feeñ dootoo nëbb waaye nee na it ku ci nëbb dootoo feeñ kon ñun ñëpp nanu suq ànd ak daayira Muqaddamatul Xidma ngir entretenir jumaa ji ngir jëmmi sëriñ bi. ndeysaan euh, li fi nekk ci ay ay doomu aadama di liggéey ci jumaa ji maanaam ay téeméeri téeméer la. téeméer kon loolu. bu dul màggal li fi nekk rek maanaam ay téeméer la waxuma laak bu màggal jotee te ñoo ñëpp personnel boobu yëpp maanaam waa daayira bi ñoo ne wàll parce que bu fekkee euh, danga nga da bàyyil nit këram mu bàyyi këram bàyyi lépp ñëw ci barab bu selli bi di ci liggéeyal sëriñ bi même bu la fayeekuwul sax war nga am loo xam te ni ko teg ci loxoom ngir mu demee ak njabootam mu di ko sukkandikoo ku ne xam na ne tamit ay imaam a fi ay naye fi jànkat alxuraan yaa ngi fi jànkatu xasida yaa ngi fi rawatina ñi nga xam te ni nag ñoom ñooy yeesal barab bi di bomb karo yi di nettoyer ñoom ñëpp am lu ñu leen war a jox boo demee tey ji ba bàq ya waa daayira Muxaddamatul Xidma ñoo fa nekk ñoo fa nekk waa bàq ya liggéey bu sell lañ fay def dem na dem nañ ba nga xamante ni fi ne ni képp néew boo xamante ni dugg na ci armeel yi dana la wax bis ba mu faatoo wax la la ba ba ko rey wax la lépp nga xamante ni liggéey boobu waa daayira Moukhaddamatoul Khidma ñoo koy taxawu kon nag loolu jar na mbokki taalibe yi am ci taxawaay bu baax a baax a baax ngir jëmmi Seexul Xadim xam nga ndeysaan liggéeyu liggéeyu daayira Moukhaddamatoul Khidma bi fardul kifaaya la mooy ñëpp la warandoo waaye bu ko ñenn defee wàcceel ko ñeneen ñi kon ndokk yàlla bi ngeen nu ko wàccelee ndax jumaa ji murid yëpp a ko war a entretenir ngir mooy sunu sag mooy sunu ndam ñun ñëpp a war a entretenir kon jaaraama waa Moukhaddamatoul Khidma kon yéen dañ leen war sax daggal salaire ngir ñun ñoo ko waroon def ngeen defal ñu ko jaajëfati sëñ Mame Balla jërëjëf lii mooy Talibé TV Cheikh Aïcha ñu gisaat ñeneen jërëjëf ba léegi sur Talibé TV ndeysaan ñu daje fekk koo xam ne sunu sëriñ la sunu kilifa la waaye mooy terewul tamit mooy monsieur le maire boo xam ni mbake muy Cheikh Abdoul Mbacke Ndaw sëriñ bi nuyu na la. ñu ngi lay fay bu baax. di la bàyyi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Mbacké waa Touba waa Sénégal gépp ci bis bi ñuy waajal te Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul wax na nañ ko ci sant la boromam Cheikh Ahmadou Bamba moom waral lépp nag Mbacké la feeñ jamono te laata muy feeñ jamono Cheikh Ahmadou Foutiyu Tall wàllu yàlla woo moo ko njëkk a feeñal fekk ñëwagul jamono te loolu Mbacké la xewoon magam mu mbokkal ñaari waajur maam jaar Jaara borom Saam Mbàkke feeñ fa lañ ko denc taawam Mouhamadul Kabir soxna Fatima Mouhamadou Abdou Khadir Mouhamadou Yedal ñu ñëpp ay doom fa leen denc dëkk bi mu njëkk a sanc di Daaru Salaam Mbàkke la nekk bi mu jógee ci géej gi dëkk bañ ko terale muy Daaru Salaam fa la nekk téere bi mu njëkk a taalif muy Masaalikul Jinaan mu gën a siiw ci téere mi mm. Mbàkke la ko taalif Mbàkke it lañ njëkk a wante it taawam cheikh mouhamadou moustapha bi ko njëkk wutu mbàkke lañ ko mbàkke la feeñe jamono cheikh mamadou fall mi ci toppaat mbàkke la feeñe jamono doomi sëñ tuubaa yi amoon fa ay yu bari donc kon mbàkke ak touba ñaari commune lañ wante benn communauté lañ dëgg la genn kilifa lañ am muy sëñ touba cheikh mouhamadou muntaxa kon màggal gi mbàkke touba la ndax co urbanisation don ben la kenn mu motax wacca yi ñi wacc ci Mbàkke rek mom lañu wacc ci Tuuba ñuy wàcc ci Tuuba moom ci waaw di ñaan yalla suñu borom dafal ñu li ñu li señ bi bëgg ci ñun mu am ko ndax ren magal gu spécial la ngir coronavirus wante it mouride yi xam na ñoom seen ngëm-ngëm muy Bamba manam amul dara dara dara dara dara lu mën a dox diggante seen diggante màggal màggalu sëñ Tuubaa gi mm-hmm. ak seen i jëmm kon ren màggalu Pastef la mm-hmm. murid dañu feddali seen Pastef seen engagement ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moom nag day une valeur universelle mm-hmm. day une valeur universelle loolu xajul ci sax interview bu gàtt bi ndax àddina mi ngi dox mm. te les grandes universités mm. européennes américaines et ailleurs ñi ngi impressionné wu am ay impression yu doy waar ay ak jaxle daal ci ni nga xamante ni noonu la Cheikh Ahmadou Bamba organise yëf yi Touba développement bu gaaw bi mu développé yar ak teggin bi nekk ci taalibe yi ak nangoo dégg seen ndigalu kilifa ak toppante yi ak méthode ak organisation bi bi am ci taalibe yi tax na ñu war a gën a pasteefu ñun ñëpp te xam ne liggéey bi saa su ne rek chantier bu bees ubbeeku kon ñi ngi ñaanal sëñ Tuubaa Cheikh Mamadou taxa seen borom yàggal ko fi ak mbokk yëpp te yàggal ñu fi ñu bokk fi yàgg. sur le plan social monsieur le maire mairie bu Mbacké nan la ci taxawee. dama ne sur le plan social mairie de Mbacké dafa mas am dynamique boo xamante ni li ko tax a jóg mooy développer dëkk bi. développement nag dafa am ñetti tànk yu muy taxawee. ba ci njëkk mooy wér gi yaram ba ca topp mooy jàng ndax ku wérul te improductif ñaari nit dañuy bokk ndey ak bàyyi day seex kii ñu jàngal ko kii ñu jàngaluñ ko kii ñu jàngal mën a dem ba fayee ko cinq millions par weer ki ñu jàngalul mënul passé mille kon xam-xam moo leen wutale leneen la ci des mooy fexe ba nit ñi gudd fan loolu nag dafay laaj ca lekk ga dafay laaj ca environnement ba dafay laaj ca nañ leen di accompagner dañuy laaj ca sécurité ba yooyu yëpp nag dafa doon loo xam ci lañ tege di ko dox doxin woo xamante ni foo romb rek doo fa jaarat wante it ci développement boobu il faut que am réew pour mu émergent ab dëkk pour mu émergent il faut moom de une institution forte organiser yëfi ndànk-ndànk ci ci ci ci ci xel xalaat wante it fexe ba dëkk bi am une attractivité buy permettre mbooloo mi ak askan wi sawar faa investir sawar faa ñëw parce que xam nañ ne Touba ak Mbacké lu ñu gën a avancé rek ñuy gën a jaxase doon gën a doon benn ndax li nga xamante ni mënees ko investir Touba mënees na ko investir Mbacké et vice versa kon noonu laa ko gisee léegi kon xanaa kàddu bu mujj gi rek mooy lan ngay ñu mbokk taal bi nga xam ni ñoo ngi ci yoon di ñëw ak chauffeur seeg ak ñi nga xam ne ñoo ngi ñëw. li ñu mbokk taalibe mooy ñu def ndànk. te xam ne Serigne Touba xéewal la goo xam du jeex. nañ def ndànk ak si ci jàmm. ziyaare Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul sant la borom boromam. delluwaat ci jàmm. wasalaam jërëjëf macha allah Cheikh Cheikh Abdou Ndaw monsieur le monsieur le maire. mooy maire Mbacke wax fa dëgg yàlla kàddu yi rafet na macha allah boo xoolee ni muy waxee sax da xam ni étiquette u taalibe moo fees dell ci moom moo nëbb wax fa dëgg yàlla maire bi kon wax fa dëgg yàlla waaye terewul it boo déggee ni waxee xel dafa dal barke borom Tuubaa ñu ñaan sam yàlla na ko sàmm ak bépp mbokki taalibe yi nga xam ni ñëw nañu ci bés bi ngir jëfal sëriñ bi ci sant la yàlla sëriñ bi ngir kenn ku ci ne boo jógoon ngir sant yàlla du la wóor ba xam sant googu yàlla dina ko nangu. Mais c'est Abdoulaye na wax contrôlé ndax a du contrôlé contrôler. Serigne ngir Serigne du gendarmerie du police du mouvement c'est le mouvement des élèves étudiants républicains du département de Mbaké. Hmm. maanaam bu ñu waxee élève étudiant républicain mooy képp kuy élève wala ngay étudiant te bokk ci parti bi ñuy wax muy parti APR mm. te le président Macky Sall jiite ko mm. waaw man nag man maay le coordonnateur uh-huh. coordonnateur départemental bi muy ma tudd Moussa Ba uh-huh. nekk étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar léegi Moussa ñu gis tey ngeen di joxe ay masque mm-hmm. maanaam dafa tegu xëy na ci politique wala ci ndigal la tegu euh, masque yi ñuy joxe ci ndigal la tegu mm. ndaxte ñun dañu nekk ay ndaw yoo xam ne nii ci département bi la ñu dëkk te ñu nekk ci jamono boo xam ne bii nii mooy mooy mooy jamono màggalu Touba. màggal gi tombé ci contexte boo xam ne bii nii euh, euh, c'est marqué par la présence euh, de la maladie à coronavirus. donc tey mu am ay ay digle yoo xam ne nii. waa kër docteur joxe nañ ko. ba digle yooyu weesoo it ki nga xam ne nii de moom moom mooy le khalife général des mourides joxe ndigal pour que képp koo xam ne kii da nga ñëw ci màggal gi. ak ñun ñi nga xam ne ñoo war a dalal gan yi. ñu càmmoo maanaam takk masque gi ngir maanaam ñu def màggal Touba goo xam ne gii nii dañ koy def ba jóge fi te benn cas coronavirus ñu ko fi dégg loolu moom moo waral ñun en tant que ay ndaw yoo xam ne nii it dañoo dëkk ci dëkk bi tamit nekk ay ndaw yoo xam ne nii ay étudiants yoo xam dañuy politiqueal le président Macky Sall ko ci département Mbacké bi ñu ne loolu noonu kenn waruñu see jiitu ci lañ defee suñuy démarche confectionné ay masque daane dañuy ñëw euh, jox ko population mais du ko jox rek bàyyi la ñu dem mais dañ leen koy jox sensibiliser leen maanaam mooy wax lañ ne leen ndigal li mo ñu tak masque mom ngeen dégg kuñ jox masque loolu lañ lay wax hmm. ndax gis nañ nit ñi dañuy yor masque mais dañ koy denc duñ ko tak hmm. té masque bi pour tak la hmm. donc loolu mom mo waral tay ñun ñun ñu ñew pour def loolu ak ay gel antiseptique waaw gel yi antiseptique yi li tax tamit ñu bolé ko ci moy que masque bi rek ça suffit pas té jokkalante bi day am ci loxo yi moo xam kaasu café Touba yi nga xam dañ koy jokkalante mo xam atay mo xam ndox mi nga xam dañ koy sëddale mo tax ñu bolé wacc gel gel gel hydroalcoolique yi pour que ki nga xam ne ki nii tey maanaam euh, euh, dafay jaxasoo ak nit ñi di joxante ñoom loxo mu mën a am loo xam ne nii tey dina koy laal ci loxom bu ko defee loolo noonu di ko tàggaleeg microbe bi nga xam ne nii tey mën nañu mën nañu nekk vecteur de de de transfert euh, maladie bi nga xam ne bi nii moom moo am ci jamono bi. mouvement bi sosu na avant corona bi wala corona bee ka tax a sosu. waaw mouvement bi sosu avant corona bi. lu yàgg ndax mouvement bi bi parti APR existé. ca la mouvement bi existé. kon mouvement bi dafa créer ay structure ci biir parti bi daf ko structuré daal di créer mouvement boo ne bi ni moom moo moom moo regroupé jeunes yi ñu koy wax COSER créer mouvement boo xam ne bi ni moom moo boot képp kuy étudiant ak élève bokk ci parti APR bi ñu tuddee ko maire bi yu mouvement boobu jàllee nag am na tamit mouvement boo xam ne bi ni euh, euh, moom moo moom moo moo boole cadre euh, ñu tuddee ko comité des cadres républicains am boo xam ne bi ni tamit moom moo moom moo ëmb tamit képp kuy jigéen muy les femmes te bokk ci parti APR bi ci ci mouvement étudiant yi kon mouvement étudiant bi dafa exister bi parti APR exister te mouvement bi APR moko mom le président de la république la ligéyal waaw. ok Moussa Ba ce dernier mot ci jeune bi jeunesse yi nga xamni amna sax peut-être que ñi nga xamni mhm. ñoo ngi pour ñew ci magal gi. Mhm. amna ño xamni xeyna ñong ci yoon bi lan mooy cadre soññe yi. waaw cadre euh, soññe yi moy manam jeune yi nga xamni actuellement dañu nekk ci yoon bi di ñew di magal ci maanaam euh, euh, surtout ñi nga xam ne nii tey souvent dañuy faral di di di di di yor deux roues di màggal si mm. maanaam ñu daw ndànk mm. euh, xam ni it maanaam jamono bi ñu toll dëkk bi day xat autorité bi dana xat bu ñu dawul ndànk rek maanaam jéye mën na am te jéye jooju noonu wax dëgg fa yàlla nekkul loo xam ne lu ñu sàkku la beneen bi mooy ñu xam ne dëkk bi it dëkk la boo xam ne bii nii dafa am dafa am ay ay ay ay sart yu fi nekk dafa am ay tere tamit yu fu nekk bu ñu ñëwee ñu xam ne màggal moo leen indi ñu yam ci li nga xamni mom moom la magal gi lambo te señ bi bëgg ko ci dëkkam bi donc leneen luy safan bayit manam ñi ngi koy ñi ngi koy ñaan bu ko fa kenn def donc te buñ fi ñëwé it manam lepp lo xamni tay lu mëna la rek ah nañ ko bayyi te xamni kat magal lañu def mais magal gi dañ koy def ci jamono bo xamni bi ni manam jamono bu xaw day war la te ci loolu la señ bi woté kon tay kep kuy talibé ñew tamit ngir magal si da nga wara a sàmmoog ndigal li nga xamni di moom la borom dëkk bi bëgg te li borom bi borom dëkk bi bëgg li ni ñuy def ci la bokku muy tak masque yi donc dox ci donc loolu mom la suñu bëgg. jaajëf Moussa Ba merci. Moussa Ba coordinateur coordonnateur maire départemental de Mbacké. deng nga ko Moussa merci takal sa masque ngir roy Serigne bi. maa ngi nekk élève ingénieur en sécurité informatique à la faculté des sciences et techniques. de l'université Anta Diop de Dakar. waaw li li tax mu li tax mu intéressant moy ndaw do nga mëna soñ ndaw. Mhm. ndaw la ni ñun kon takal sa masque. ngir roy Serigne bi. takkal sa masque ngir say mbokk jënd na nañu ay masque ngir jox la ngir nga takk lépp rek bu màggal gi jàlle benn ka duñ ko am incha allah màggal gi jàll bu baale corona beeg lépp à la poubelle jaajëfal ayca